yow mii di seetaan dalal ak jàmm ci chaîne bi di Tivaouane Tawfekh bul fàtte abone ci chaîne bi di Tivaouane Tawfekh aimé vidéo bi commentaire ngir nga jàpp ci liggéeyu chaîne bi di Tivaouane Tawfekh nga xam ni Tawfekh rek la leen di jox yow mi nga xam ni da nga am programme wala lu mu mënti doon wala marchandise te bëgg koo siiwal mën nga jokkoo ak chaîne bi di Tivaouane Tawfekh ci numéro yi mën nga ñu fekk ci TikTok Facebook Instagram ba ci sax YouTube maani tawféex rekk ngeen di dégg ci lépp lu jëm ci seen wàllu wérgu yaram ndax suñu produit tawféex yi nga xamante ni ay produit bio naturel la yoo xam ne ci gàncax yi nekk suñu réew lañu ko defaree waa tawféex ci lan tawféex ci wàllu néegu sëy tawféex ci wàllu mbixum siti ba ci tawféex ci wàllu hémorroïde tawféexu sëy bi mooy produit boo xamante ni moo soxal képp ku am jafe-jafe ci néegu sëy néew kattan jeex na tàkk boo ko jëlee fi nga toog dix minutes avant rek da ngay dégg jàmm soxna si kontaan nga kontaan néegu sëy bi neex néew kàttan ci réew mi jeex na takk ak tawfeexu sëy bi laal léegi jooni jooni léegi muy baax léegi cay tawfeexu sëy bi ak tawfeexu ndoxum siti képp koo xamante ni jàngoroy ndoxum siti daf la sonal jàpp leen ni di ngeen ci am tawfeex ndax jeex na takk ak tawfeexu ndoxum siti tawfeexu hémorroïde bi képp ko am ballonnement wala nga am hémorroïde externe wala interne jàpp leen ni jeex na jàngoroy hémorroïde sonal ñu bëri tawfeexu hémorroïde moom daa dëkk jële fi lépp am nañu xud yu boo xamante ni moo leen soxal bu seen yaram di diis du ngeen mën dara yaram bi diis gann ngeen di tayel ba jàpp ni sax dañu leen liggéey fekk na yaram bu diis tong la jàpp leen ne suñu produit yii bu ngeen ko jëlee di nga oyof tol gaaw leen gaaw jokkoo ak ñun ci 77 593 19 11 wala 77 245 36 39 kon nag Seydina Omar Kayre ngoog borom produit yu baax yi Seydina Omar Kayre mi ñu andil tawfeex ma ni tawfeexu néegu sëy bii gaaw leen wuti ko te xam ni sonal nañu bari waaye tawféex rek ngeen ciy dégg ak Seydina Omar Kayre borom tawféex aouzu billahi min ashaytani rajim bismillahi arrahmani arrahim والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما رب من أجلك وقد أقول بحسن إمدادك يا مقيل عونك حولك مع قوتك وما وهبتنيه من نعمتك توفيقك المرجو مستعينا وأنت خير من معينا أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم كاللعين ذي العدوان mbokki jullit ñi mbokki seetaan Tawfekh TV Tivaouane ñoo ngi am mbégte contentement bu baax dalaat ak yéen ci seen émission bii di les 10 minutes de Oustaz Kairé ñu di ci jàngale lu jëm ci suñu wàllu diine ci wàllu jaamu yàlla ibaadaat yi bala ñuy continuer nag ci tey ñu nuyu la xalif général de tiijan ak mboolem xalif généraux yi jiital ci alxalifatul am li tariqati tijaniya as cheikh sidi aboubacar si mouhamadul mansour xafidahullah wa raahu ayadahullah wa am mboolem moom am mboolem xalif généraux yi ak mboolem njabootu seydil xaaji malik yëpp ñoo ngi nuyu ñëpp di leen ziyaara di leen jaajëfal tey nag ñu ñëwaat ak yéen ci les dix minutes de oustaz Kairé fas yéene yeggale fa ñu yemoon démb ndax démb ci sip, sip sip sip sip ci julli liñu sip ci julli ñu waxon len lan moy luñu sip ndax bo ne sip di nga wax lan lan moy baatu sip ak sip sip moy lan muy al makruh na mo xamne dañu dañoo sopp nga bayiko bañ ko def ci lu ci lu mu mënti doon mo xam liñu sip ci julli la ci koor ak lu mu doon waaye képp koo xam ni fa man tarakahu naa la sawaaban soo ko bàyyee da nga ci am yoon képp koo xam ni bàyyi nga ko defoo ko ñàkk def gi nga ko def dañ la cee fay tiyaaba waaye wa man faalahu képp koo xam ni danga ko def laa laa yu àqabu kenn du la ci teg benn punition kenn du la ci mbugal waaye nag bàyyi ko moom moo gën kon loolu mooy lu ñu sib loolu nag ci lañ tolloon ci émission bi passé ku ko seetaanagul boo demee di ko gis moom lañ fa yéenee yeggale la ca des ci nga xam ni moom lañu ñu sib ci julli ci ci lu gàtt ca gaaw bi ñu weesu woon nag ñoo ngi yemoon ci taxmiidul aynay mooy xapp-xappal sa ay ñaari bët di julli di xapp-xappal sa ay ñaari bët di saaxaan foog ne nga dugg ci dañ koo sib booy julli lillahi wa li concentré wul xam ni ki bind bind loo mënti gis moom nga jàkkaar lool te mooy sunu boroom jalla jalaaluhu wa azza kamaalu suñu boroom bi màgg bi nga xam ni moom moo la bind jaarale la fi la jaarale inna xalaqna al insana min nutfatin amsaajin nabtalihi fa jaalnahu samian basira yàlla moo la bind te bi mu lay bind yaa ngi nekk toqantalu mën yi mu di la forme di la jaar ak yow ba nga nekk nit di dégg di gis di wax di dox sa ay soxla am ndey am baay am kër am oto ami soxna am leneen ak leneen ak leneen loolu yëpp yàllaa ko def ci yow te yalla mom ko def nak de ci yow heure bi ngay jakarlo ak mom diko gëna a moy heure bi nga kabar def takbiratul ihram di kabaru armar jakarlo ak mom heure bobu ci nga gëna a sa borom kon nak war nga ko jox cër war nga ko jox gëdd war nga ko jox hormata limu la sante pour nga def ko war nga ko bayyi xel ku fi président de la république wo nga tok ak président de la république yëngu sax do ko def concentration totale ngay àndal ci jamono bi nga toog ak le président de la république ngir jox ko xorma waa nag sagam loolu président de la république nga koy defal asama ak yàlla mi la bind bind président de la république boobu loolu mu doon mu mu def ko ko teg ko fi mu nekk ndax xulillahumma malikal mulki tuutil mulka man tashaaw wa tanziul mulka man tasaaw gis nga yàlla moom mooy goroom nguur te nguurit moo ko jox ku ko neex kon président boobu nu mu mel yàllaa ku ko def sagam moom nag boo demee ci moom moom ngay ànd ak xorma ak teggin googu asama ak nit at asama ak suñu boroom bi la bind kon bu nuy julli nañu xam ni yàlla mi nu bind la ñu jàkkaarloo ñu am xorma bañ faa nekk di dëngaloog wengaloog caaxaan xap xapali bët ak lu ne ñu dugg am na ñoo xam ne bu ñuy julli boo leen dee xool ay ree sax da jàpp am na ñoo xam ni bu ñuy julli nga di leen xool yow mi leen di seetaan ay ree da jàpp ndax façon foogu nekk gersu xool gauche xool droite dëngalu jàpp digg jàpp oh yal nañu yàlla defal jàmm yal na yàlla defaat suñu xol yii ñu bàyyiwaat ko ci place ba buñu jakarlok mom liñ ko wara jox ñu joxé ko ko ci anam bi nga xamni momo mo mom mom mom mo gën bokku na ci nga xam dañ ko sib tamit mooy waddu 'ala al-ukhra moy ngay julli jël sa ben tank bi tégalanté ko manam croiser ko tégalanté ko ak benen tank lo tamit dañ ko sib bo julli dañu bëgg nga taxaw taxaw bu jub jakarlo ak sa borom waye di tégalanté tank ak yu ne nga dugg ci dañu bayyi waaye ta wa bi amri dunya di julli di xalaat mbiru àdduna di julli di xalaat sama oto bi waaye eh, eh, bi war naa jeex de waaye man war naa yaa ngi julli mais yaa ngi xalaat waa man temps yi banque naa de waa man nangam nangam yaa ngi xalaat waa man sama soxna si waa man diw te yaa ngi ci biir julli gi amoo benn concentration ci li ngay def ndax xalaat mbiru àdduna xalaat koom-koomu àdduna xalaat yu kenn xamul loolu tamit dañ koo sib mooy moo tax wa tafakkuru bi amri dunia ci di xalaat mbiru àdduna ci biir bi ngay julli dañ koo sib wa amlu shay'in fii kum bi kummihi aw fii kummihi di julli def dara ji sa biir poche comme ngay julli jël sa téléphone dugul ko ci sa bir poos nga xamni ni téléphone dafa dis oyoful say bo yëngatoo ci bi wala ngay seug wala ngay roko da yaangi sentir ni amna lu nekk ci sa bir poos kon yaangi bayyi xel leneen lu bokku tok julli gi mulay jax-jaxal motax bo julli sa téléphone wala lu mënti doon ci sa bir poos lo xamni da la nara jax-jaxal li ci gën moy nga dindi ko set fenen foko tek ba julli ba pare kon di julli def dara ci sa bir poos lu lay jax-jaxal ci sa bir julli dañu ko dañu ko dañu ko sip wala ngay julli tamit cheikh dara siak dara ci sa gemmeñ dañ sip. sip di julli lol ay tiaxan la sa julli di cheikh di siak dara ci sa gemmeñ lol tamit dañ ko sip waye wala abas bil bil bi di julli di focc sa bir sikim yalla may la sikim bu gudd rek meloo ni man ngay julli japp sa sikim bi di xecc ak di fo de dugal sa baram ta yaa julli waaye nan bayyi lol ay fola ay tiaxan la yalla nga lol yalla jakar lo pap Omar Kayre lo ak kenen Yalla nga jakar lol yalla señ bi da ngay toroxlu bayyi xel sa borom motax julli di di di japp sa ay sikimit dañ ko sip waye tamit wax bismillah manam boy julli di commencé wax bismillah ak ak ngay julli naan a'udhu billahi ay ay wuté daf ci am dafa am ño xamni nenañ dañ ko sip ñi dafa dagat ñi dafa war moy ngay julli di tari fatiha na ni a'udhu billahi minash shaitanir rajim wala nga wala nga ni bismillahi rahmani rahim wala sanga boole len ñom ñaan ñëpp andi ci julli ñi nenañ budé ci julli farata dañ kusip sip waye budé ci naafila sibuñu ko waye budé imam Malik nak mi nga xamni ñun mom lañu top ci ngiru imam Malik lañu bok mom dafa dagan dagan na man nga ko indi ci bir julli wuté gi ci am nak mo waral ngay gis ñen ñi buñu julli alhamdulillahi rabbil alamin lañuy commencé duñu wax bismillah duñu wax a'udhu billahi duñu yoy yep luñ ci dugg alhamdulillahi dañoo topp beneen ngir bu dee ibnu maslama nag moom nee na dañ koo sopp doo farata du na waaye wax gi nga koy wax dañ koo sopp bu dee ibnu naafi'a ak moom nee na wujubu dafa war maanaam lu mënta ñàkk la c'est obligatoire daf laa war nga def ko kon ay wax la yu wuute waaye ñun bi ñu ciy topp nag mooy bil ibaaha bi nga xam ni moom la ki ñuy ngir gi ñu bokk wax muy ngiru imaamu Malik mooy dafa dagan ñun ci loolu la ñuy topp mooy wax aoudu billahi ak bismillahi rahmaani rahim ci bi ngay tàmbali ci julli tamit dafa dagan kon nag boobu mooy bi nga xam ni moom mujj ci yi nga xam ni dañ ko sib waaye fa in faala shay'an min almakruhati fi sala fi salaatihi kuriha lahu waaye nag wala tabtulu salaatuhu boo defee dara ci sa biir julli ci yii ñu sib boo ci defee benn ci yii ñu sib sib nañu def gi nga ko def waaye yàqul sa julli kon bul jàpp ni yawit boo defee lenn ci li ñu sib ci biir julli dafa yàq sa julli déedéet yàqul sa julli waaye boo ko bàyyi woon moom moo gën kon nag yooyu mooy yi nga xam ni moom lañu ñu ci biir julli képp ku ko mën na bàyyi ci biir julli bi moo gën ndax bàyyi gi nga koy bàyyi yàlla daf la ciy defal tiyaaba kon ñoo ngi nuyu ñi nga xam ne ñoom ñoo ñuy seetaan ñëpp di leen gërëm di leen jaajëfal di am mbégte ak contentement bu baax a baax a baax di nuyu aussi comme niñ koy defee it saa yi suñuy jeexal émission tànn ñaar rek ci ñi nga xam ni euh, dañu ñuy bàyyi xel dañ ñuy dañ dañ ñuy bàyyi xel tabaarakallaahu tey ñuy nuyu it suñu papa suñu suñu suñu suñu suñu nijaay suñu mag suñu lépp di alxaaji kayre moom it ñoo ngi koy nuyu bu baax a baax a baax di ko ziyaara di rafetlu taxawaayam ak ànd bi muy ànd ak ñun moom alxaaji kayre ca ca kayre moom it ñu ngi koy nuyu di ko ziyaara di ko kontaane bu baax noonu it la ñuy nuyoo suñu papa it di suñu papa di suñu lépp moom tamit noonu suñu wéyjuru papa moom it di mbay Babacar Kayre moom it Mbaye Babacar Kayre moom it ñoo ngi koy nuyu di ko di ko di ko ziar Mbaye Mbaye Babacar Fall Mbaye Babacar suñu papa di suñu di suñu di suñu wóllëre suñu xarit di suñu wóllëre papa moom moom moom Mbaye Babacar Fall ñoo ngi koy nuyu moom di ko ziyaara di rafetlu ànd bi muy ànd ak ñun ak képp koo xam ne yaa ngi ñuy seetaan rek ba beneen yoon insha allahu taala rabbi assalaamu aleykum wa rahmatullahi aleykum